sunu wasila sunu xarit sunu soppe Serigne Abdou bi nga xam ne taxawaayam ci ñaw ak defel ci réew mi yëpp xam nañ ko te ci doomu aadama yi nuyu coordonnateur national bu PVD sunu xarit ministre Maodo Lamine kilifa yi fi dajee ñëpp njiitu parti yi njiitoy kuréel xame yi soppe yi am di jàmm yi taalibe yi àndandoo yi ak sunu mbokk taskatu xibaar yëpp ñu fi daje jigéen ak góor jotaay bi gaaw na gaawul ndaxte sëñ bi ku ko xam xamee ko li tubaab di wax pragmatisme réew mi lépp a jàmp lépp a urgent benn waxtu bu nit di xaar yàq lay doon wala yokk yàq wala gën a xóotal yàq fan yu génn ñun yàlla baaxee nañu ci liñ bokk mu yoonu sëñ Touba liñ bokk muy Sénégal liñ bokk muy gëm liggéey liñ bokk mooy defar Sénégal liñ bokk muy gëm dëgg gëm borom bi óolu ko te bañ jël place borom teg fa benn doomu aadama ak koo mën a doon ak lu ñu la mën a dénk te mu nekk luy jeex waxatuma la ab politicien ak loo mën a doon ak foo mën a toll ci mbaaxam mu yàlla baaxee ko borom expérience ak jaar-jaar bu tànn ci yoonu sëñ Touba waar woo xam ne ni mooy defar jikko defer ndaw ñi ci réew moo xam ne téeméer yooyu jël juróom-ñaar fukki ak juróom lu ko ëpp ay ndaw lañu bu rek lépp na baax. ma am man nekkoon ndaw ministre bi jiite ndaw ñi suma kilifa su ma wasila Ablaye Wade njëkk maa yebal ma ne xale bu ndaw le 31 décembre waxtu xale yi di noosee stade bu fees tepp. kilifa gu mel nii di fa defal ay doomu aadama ma gis fa luy ma doy kéemtaan wax ko sama kilifa mu ne ma royukaay la ku gone war a seetaan la ku war a gone war a topp la ku gone war a déglu la ku bëgg a mucc bëgg sooy sama kilifa ci politique teg ma loolu fa la xamee ba tàmbalee ba tey jii ñu découvrir ñun mu nekk koo xam ne ni dafa am yéene xam nga bu ma gis ci moom tabe gu mel ni luy defar ndaw loolu laa gis ci sunu wasila bi sëñ Abdou bi nga xam ne aussi ñëpp a ci coonoom ci defar ndaw ci tegtal guidé li mu jàpp ne war naa mën a defar ñu taxawal parti oolu na ma seet naa ko di dox mbokk dox taxu taali taalibe xaritoo ñu waxtaan ci tolluwaayu réew mi ñu bokk ci gis-gis bokk ci gëm-gëm lii defar senegal ma jànge politique ci yoonu libéralisme ka ma jàngal ma nampee ci moom te du ma gàll lu ma nampal ci muy Ablaye Wade tee ñu joxoñ ba mu nekkee gëstukat la voie mouride du développement da ciy bind article ci titre ba sax beneen la waaye dafa wane ne rek yoonu murit tegtalu Serigne Touba ci modèle bi mu wane ak bi mu jur amul ñuy importer ay concept ku ñu wax ne libéralisme keynésianisme utilitariste nangam jog may naan quinze ak nangam nangam fekk lépp a ngi ci biir réew mi man samay gëstu samay bind samay xool dañuy gëm ne war nañ mën a dem Sénégal ba am ay universités yoo xam ne ni nanga fay jàngale leen da nga fay am ay faculté wala ay département yu am théologie appliquée au développement njàngale sëñ Touba njàngale sunuy kilifa diine yi nga xam ne ni seen xam-xam xóot na wees raw am vision boo xam ne moo tax ñuy jàngale ci sunu daara di ko jéggaani bitim réew bu buñ ci sukkandikoo mottale ko ko aada ak suñu gëm-gëm Sénégal mun a jëm kanam ci loo xam ne du naxasaayal suñu gëm-gëm ak suñu taxawaay beneen ba ñu bokk vision ci loo xam ne ni kaso amul place ci réew yu mel ni bu nekkee defee da ko da ko jox yàq lay gën a def man su ma téye dama ci bind mu ëpp lu ma juróom ci kanam dañu war a soppi kaso remplacer ko pay ay centre de correction wala de redressement civique yoo xam ne bala ngay jël rëbës gi def fa ñett junniy nit hmm. ci condition exécrable nga dem ca tool ya Anambé wala Vallée du Sénégal wala centre def fa ay hectares yi hectares def ko ay centre yoo xam ne mu nga fa def ay junnee nit ñoo xam ne ku fa dugg mën fa métier mën fa liggéey yokk koom mu Sénégal nga ubbil ko compte bancaire yi banque agricole muy liggéey balay génn yóbbaale loo xam ne ni bu génnee mën ko liggéeyee. la des ñu koy fayee la nga xam ne ni mooy dundin nga foofu beneen ba ñu koy yokkee ci lay yor wàllu yoon ba pare ñu am yéene gëm boo def ay centres civiques régionaux ay centres. de correction civique ci biir réew mi ñu teg ca loola jël ndaw ñu liggéey loon jàng leen métier ku ca dugg ci njuumte boo génnee defer defaru defaraat teg ca yoon defar ñu bokk vision boobu ñu gëm ne aussi comme que bu Sénégal waruñ toll fi ñuy jëggaanee tey ay meew di jëggaani ay yàpp suuf si nekk fi ku gëm xelkom gis la fa ne xal bu ñu ko tasaaree Sénégal yëpp koom-koom am fi jàmm am fi donc suñu waxtaan dafa yooyu da ko laal ëmb ko ñu wax ma yéenam bëgg-bëggam ak am naqar gu am te ñu bokk ko ci tolluwaayu réew mu nga xam ne politique politicienne par parloo mooyaalu bañ a bàyyi ak xëcc façon bu ne bëgg a naxasaa suñu réew benn fi ak féewaloo goo xam ne tey mbañeel ci waaso mbañeel ci ci cosaan mbañeel ci foo dëkk mbañeel ci foo far mi ngi commencé di daanal di màbbal canu mbaaru Sénégal mooy li am tiit ak xuppaange ak jàpp ne ni mën naa fexe fexe bu raw pexey borom bi indi na fi mu nekk ni moytu ak tiit ba ko bëgg ne tekk noppi ngi ragal ak daan dal sa kaw yetu kel nag ku ko soppi nguur mu mujj wadd say loxo keneen jël ko mu dal sa kaw rek donc pour ma wax man du ma dugg mais sëñ bi duñu waxtaanee gis naa ci moom lu raw la ma foogoon ak la ñu waxoon ci mm-hmm. dañuy wax te ñu xam bala ngay tudd mbir da laaj koy laajte gëstu ko xam ko ku bëgg réew mi la ku bëgg Sénégal la ku bëgg Afrique la bi njëkkee toog baat bi gën a njëkk a génn ginnaaw sëñ Touba ak yoonam mooy le réalisme africain waxu le réalisme Sénégal jëggaan mënta yoru kër jëggaan mënta yàggalu sàq da defer deferu deferle di bokk loolu moo nekk canu mbaaru li ñu àndee ji ma dellu woote ndaje samedi bi passé suñu parti 11h ba 5h ca ngoon responsable yëpp ñu waxtaanee ci ñu jébbal ñu maître Abdina Ndiaye di avocat di porte-parole parti bi Moustapha Mballo responsable Vélingara ñu ànd li may wax ñëpp a jël keroog jug kaddu ni ma doyloo ne li ngeen di jël ak fu ngeen dugg parce que Sénégal li koy defar li ñu wax fii booy seen waxtaan suñu xel dal ma ci loolu bu loolu nag weesoo man sama wàllu bopp nag man sama cofeel ci moom. sama kóolute ci moom xam nga nit looy sa sumbag moom rek booy jullit jiitalal xol bu laab yéene ak gëm-gëm sëñ bi man en tout cas xam naa ne ku bëgg Sénégal nga xam naa ni ngi àndal ñu bëgg Sénégal lañu xam naa ko bëgg a defeen nga xam naa ne say jëfin ànd naag jël ndaw def ko luy saafara bañ koo def jafe-jafe mooy le jeune est solution et non pas un problème tant que ñu koy def problème rek réew mi du avancé li des nañ ko après moom moom moom bés bi moo lañ war a dégloo waaye sëñ bi na nga jàpp ne combat pour Sénégal mhm. combat pour Afrique mhm. man dama bokk ci doomu baadool yi nga xam ne ni li ma réew mi defal mënu ma ko ko fay mhm. sama bakkan bu ci rotoon ma ñàkk ci sama liberté loolu sax asaka la ci la ma war a defal réew mi ca la ma defal te gënuma samay morom gënuma leen ci lenn te ku ma xàmmee tey séen ma te ma waroon réer ci déggu ñax ya ci àll ba kon combat bi on le ñoo ngi di gërëm di leen sant di ñaan tous les sénégalais ñu ngi kon ne liggéey bi wax ak ñëpp nag di diisoo tous les sénégalais nañu fekk si li nii ña nekk feneen am lu leen naqari tey ragal ku leen xupp wala ku leen teg daan wala ñàkk lañu yor nañ xam ne yàlla rek mooy joxe Sëñ Tuubaa mooy joxe kóolu ñafe mooy joxe nañu fekk si liggéey